seraax la nuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa coow lu nar a juddu ca faas bu nu moytuwul combat Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux bii fërëx ak réeroo dana am ci diggante Gris Bordeaux ak Tapha moom le directeur technique de l'écurie Fass ñëpp a xam digganteem ak Balla Gaye 2 gi muy taxaw Balla Gaye 2 amee ay combat kenn naa tabletu ko waaye ana la Tapha di def bu fekkee ne Balla Gaye mooy bëre Gris Bordeaux ñaar ñëpp di ay booyam kii di successeur am a a neutre ci ci ñag bi réeroo bu réy dana am ci écurie Fass combat Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux bi moom mooy tuuti Tapha Gueye ko teg ci tuus yi combat revanche bi doon dox ci diggante Modou ak Balla Gaye 2 boobu danoon njortoon ne Tapha bokkoon na ci ñi préparé Balla Gaye amoon na ay vidéo sax yu doon dëggal li ni mel loolee nag neexul le troisième tigre de Fass Gris a xew ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 ne ci presse bi la ko yëge yëgu ko benn yoon comme que yëgu ko nag boo moytu dafa nar a les bras neutre ci bile combat te li ni mel bu amee face dana tas la nar tas le octobre mooy CNG ak mandat Alioune Sarr loolee moo waral bokk ci axlu lamb yépp ku ci nekk di génn di ci joxe sa xalaat président xam sa cosaan Malick ñi ngi ba noppi nekk président Ares la mu xamle mooy keneen ku fi mën di ñëw na nekk ku am sens d'écoute na nekk ku fédération comme que xalaatoon nañ ne dañuy dem ci fédération beneen président bi fii ñëw dafa war a liggéey ci loolu beneen bi mooy jël nit tabb ko teg ko fi mu fiy def ay at yu baree bari loolu dafay jeex président bu fi ñëwati da ngay mos sa morom mos bu nu jàllee ca Boy Niang ci combat mbay dox ci diggante Tapha Tine journal dafa xëy wane ay qualité la mu wax mooy les armes de Boy pour écraser Tapha bi ci njëkk mooy Boy Niang 2 la ku ko xam-xam ne day liir combat da koy jox gëddëm xamuñu ko ci parax ko ci sorxo-sorxo moom combat bu mu jël koy liir di début à la fin beneen taxawul saa yu entraîné li ngay wax mooy booy bi liggéey na beneen ba mooy courage de lion ndax Boy Niang 2 ko ëpp courage ci làmb ji dañ leen di wàññi mbër la moo xam ne foo natt courage ba weesu na ko ñetti atu yooyee nag bu ko réerul ca combat ba moom Boy Niang mën na am dara ci kanamu tafaati jabel turaay promoteur Gambie ba taxawal diggante Double Tyson ak xoyantaan combat royal boobee boo duggee ci sunu làmb tey da ko fa fekk wax na ci combat bi mu taxawal te bari woon na ba jot ñu bëri que le meilleur gagne ña gagné wut ci na ci écurie Bosco Sow ñoom seen saison bi défaite yaa ëpp victoire ya sept victoire la ñu def ku wax écurie Bosco wax feu wax double Tyson wax Sunjata ku wax écurie Bosco Sow wax am te da wax góor gi si Dieng da nga wax Aliou waaye foofee seen leader ba feu mu nga ca mbedd ma moom feu rouge saison la def Sunjata dafa match nul seen victoire ya nes moo daan yokkal coow mbaytin senior daan Serigne Mbaye bu Pikine mbooloo laas daan guy gi bu Abib Ndiaye Bib Diop daan Bekaay bu Cambérène Aliou Sila daan daan Bouba Jaxaw bu Samba bébé alin Sey daan nokkos bu duudu bakasaar seen treize dafa de guy gi dafa daanu Vito dafa daanu tonnerre dafa daanu góor gi si jeen dafa daanu bébé Farouz dafa daanu am si tak si mbaa Casamance ñoom ñépp danoo daanu Zé Baye Fall caatu sit ak bébé tafaatin ñépp am defet ba ci bébé ndigal séya bu ëmb bu bu laal da koo daan seen match nil ba diggante suñeta la woon ak kéwél seen xam le mooy bile saison kay dara baaxu ci suñu treize défaites yi mënuñu koo justifier fenn ren kay dañuy nangu ne daanu nanu rek ngeen jëf mbokk yi lii ñu leen jox dig daje